Wamini tishi na mlala. Amini rafet na de. Torop sangara kwa. Niluka ifai. Da, kwa kisngen bogus. Kwa kisngen bogus. Kwa kisngen bogus. bi moom boo ko defee si sa bi day toj. xam nga boo defee lu baax foog nga waree ko tamit. waaw moom dëgg la lii rek ci àddina man damaa bëgg lii man leen bi xam naa ko. te bu nga defee si tat rek dara du yomb. waaw loolu dëgg la dara du ko fay yooyu moo may daane sax yow. ko def lu baax da ngay wane wala. dañ koy wane. waaw salaamaaleykum gën a xam aleykum salaam. ñu ngi fi yéen ngi jàmm. ñu si jàmm est-ce que mën naa merci. na direct wala na koy fay. lii def statut rek. ah cum. dafa def wóor man de dafay neex. neex na ma baal waaw. waaw dañoo xew nag dëgg neexul. waaw gis nga waaw loolu dafa am. waa mais yow lan la yaay ñëw não ñu compagnie ba pare te waxoo xanaa suñu toogaay a la. non pourtant não dama concentré wu ci uma journée bi rek. waaw parce que dama doon def conferência de presse léegi. bi ma génne ma ne naa xool ndax journée bind nañ ko quoi. ah bon waaw loolu kañ la. conférence de presse. waaw non léegi même pas cinq minutes dama génn foofu rek ñëw ci yéen waaw mais na nga mën conférence de presse tey journée génne ko Não non si parce que ñu ngi à ta place. waaw uhum. ah, oui war na mën a oui. grand pardon yow la kan ak loy liggéey ba war a def ci conférence de presse bi. <laughs> mais soxna si yaa ngi nelaw ah bon xamuloo ma. non non mais xam nga si xamaat. bien sûr l'homme d'affaires. ok man maa chargé de communication. ok je vois dañ doon def conférence de presse léegi. Ah. pour affaire de yoonu xel ko. xam nga ko xam-xam ko ci xel ko. c'est vrai rek la teg ko ci sama loxo. loolu rek la merci ok. <laughs> mais chargé de com. mais yow sa journal bi ko juutal. <laughs> c'est vrai c'est wax nga dëgg mais en anglais la ko doon lire noonu la dem ci àddina waaw. doy na waar. ah oui parce que toog ak yéen daf neex lool. ça